mooy mooy affaire mandat bi nga wax. léegi affaire mandat mandat bi lenn rek moo ci am. mandat bi dafay sept ans la woon ko cinq ans bi ko defee cinq ans yi dañu bindoon ne le président de la république et élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une, une fois. fois nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ñu yokk ci ne. Mm-hmm. cette disposition s'applique au mandat en cours. Mm-hmm. cette disposition s'applique au mandat en cours donc loolu dañ ko ci bindoon ah. mhm. dañu defoon dis loolu la ñuy ci tubaab loolu la ñuy wooyee disposition transitoire parce que débat bi ñu am Sénégal gi yëpp actuellement lan la mooy euh, ndax première mandat bokk na ci wala bokk ci débat bi loolu rek la pour simplifier donc ñu ne cette disposition s'applique au mandat en cours mais conseil constitutionnel bi bi ñuy ko joxee poste bi xam nga loolu constitution bi moo ko wax may wona constitution mhm. conse moo ne pour nga mën a soumettre benn projet de loi constitutionnelle au référendum il faut conseil constitutionnel joxe avis ngay mun a dem référendum su conseil constitutionnel joxewul avis doo mun dem référendum. Mhm. bi ñu ko defee conseil constitutionnel joxe avis ne disposition boobu ngeen def transitoire da ngeen ko war a génne ngeen bàyyi ko noonu. Mhm. ñu génne ko bàyyi ko noonu. bon loolu après moom moo indi warante bi ndax troisième mandat mun naa ak loolu et cetera loolu nag su amee man damay wax rek ne may mun a du fay mun Ismaïla Madior joxe xalaatam professeur diw joxe xalaatam grammairien tel joxe xalaat président sax mun na joxe xalaatam keneen joxe xalaat mais ma ne su fekkee te problème bi dafa posé wu laa wax parce que fi mu nii problème bi posé wu gars ñooy wax oui président bi dafa bëgg def lii dafa bëgg lii et cetera mais dama ne su problème bi posé wu woon lan moo amoon en 2012 nu ñu réglé problème bi. 2012 mm-hmm. nu ñu ko réglé. Euh, conseil constitutionnel. moo répondre non. moo sommes mm-hmm. su débat amee Ismaël ak Maïmouna jubóowuñu wala am na lenn loo xamante ne dañ ci jàppale mais ñu dem ci yoon mais yoon li mu wax ñu def ko bi ñu demee conseil constitutionnel 2012 lu mu wax ne Abdoulaye bu na ne candidat 2012 bi ñu demee gañewuñu ko mais xam nga mais xam nga xam nga Ismaïla ah, loolu xam nga Ismaïla bu nekkoon keneen moo nekk ministre de la justice quelqu'un qui n'était pas aussi impliqué dans le débat autour de la constitutionnalité de la troisième candidature xëy na Euh, problème bi du posé woon xam nga yow 2011 je me rappelle dama la recevoir 31 euh, décembre 2011 yow Cheikh Yérim Seck Moussa Touré euh, Lamine Ba. vous avez une bonne mémoire. ouais <laughs> je n'oublierai jamais cette émission là Lamine Ba alors nga ne j'étais dubitatif mais je me suis fait une religion. quand j'ai revisité les propos du président Abdoulaye Wade, à l'époque, les gens du PDS vous disaient la, la, la parole du président de la République n'a pas de valeur constitutionnelle. Et vous avez fait tellement de tribunes pour défendre l'inconstitutionnalité de la troisième candidature. Alors, quand nous avons la réforme là, les gens ont voté euh, presque les yeux fermés. yaa y a eu un taux d'abstention. Les Khalifa Sall et les autres là ont battu campagne pour le non, mais le oui a gagné. Nous 2018, quand il fallait engager la présidentielle, les gens ont commencé à douter. D'abord, c'est le président de la République, le 31 décembre 2018, qui rassure. Mandat bi moi dagan, moi c'est mon dernier. Vous étiez là d'ailleurs Oui, j'étais là. Et de <laughs> bi moi dagan, moi c'est mon dernier mandat. e à l'époque Seydou Gueye euh, El Hadj Kassé euh, Aminata Touré tous les caciques du régime ils sont allés dans le dans le dans le dans le même sens mais président gagné 2019 rek ñu teg la question du mandat et yow euh, yow bi ñuy def euh, référendum bi bi ñuy voté le, le projet de de, de référendum nga demoon visite visiter une une prison nga génn journaliste yi accroché la sur la question da La constitution du Sénégal est très la question du mandat du président de la et ne laisse place à aucune interprétation sur la possibilité d'un troisième mandat. L'article 27 de la Constitution dit « Le chef de l'État est élu de 5 ans une fois. Nul ne peut exercer de deux mandats consécutifs. » lii nga waxoon ca booba. Plus trois ans après, le débat se pose. yow nga ne Pour moi, la Constitution est claire. Mais j'ai entendu des professeurs de droit dire que, telles que les dispositions ont été rédigées, le président peut faire un autre mandat. Moi, je pense que la Constitution est, est claire. En principe, c'est le deuxième et dernier mandat du chef de l'État. Et lii moo jur confusion bi yëpp. C'est-à-dire c'est le ministre de la Justice qui tient deux hypothèses différentes. en quoi dans la première hypothèse da nga ne la constitution elle est très claire il y pas possibilité de faire un troisième mandat trois ans plus tard nga ne ñu dégg nga ay professeur di wax. ah dama dégg. waaw donc président ci li nga li nga jàpp président de la république mun na def troisième. non non mandat mu nekk un rétropédalage. non non non danga jum. jum ma attends attends tu sais attends danga ne. waaw. Ah. J'ai entendu. J'ai entendu des professeurs de droit dire que telles que les dispositions ont été rédigées, le président peut faire un autre mandat. Moi, je pense que la Constitution est claire. En principe, c'est le deuxième et dernier mandat du, du, du, du, du chef de, de, de, de l'État. nga ne dégg na ay professeur ah. euh, di wax ne ni ñu euh, defaree ay professeur di wax ne ni ñu defaree dis ni ñu defaree ni ñu defaree euh, nu mu tudd texte bi Euh, niñ ko rédigé président mën a def beneen mandat man nag dama jàpp ne euh, waaye man constitution bi dafa leer ah. en principe c'est le deuxième et dernier mandat du chef de l'État. Où est la contradiction bi ngay wax. vous confirmez non non dama ne Abdoulaye ah, ànd contradiction bi non naa contradiction da wax génne naa ci kon daanu. gé daanu naa léegi. <laughs> wax ñu ñëwaat non mais léegi. léegi parce que doo ma gis ci àddina man. mais li nga wax nii dafa naan xam nga loolu nga gën xam nga nii dafa am solo. parce que damay dégg ñu bëri ñu naan il di di il s'est te te tey wane nga ne ñu bari nañu juum comme yow ni nga juumee tey nii man mosuma renié wu. non dama ne li ma wax nii mooy sama xalaat ne man professeur laa du man maa juge loolu laa wax lii man mooy sama xalaat. mais dama ne conseil constitutionnel lan mooy sa xalaat. non sama xalaat li ma wax. à l'instant ñun bi ñu jàppee lan lan mooy sa xalaat. que bi ñuy def constitution bi dañu ne dañu jàppoon ne mandat wu président bi mooy nekk. Euh. non pas dañu jàppoon ne yow Ismaïla intitut personnel en âme et conscience très bien lan mooy sa conviction sama conviction sama conviction moo doon que effectivement comme ni nga ko waxee nii loolu laa gëmoon te dañ ko bind sax yow ma jigam ko dama ko bindoon cette disposition s'applique au mandat en cours cette disposition s'applique au mandat en cours disposition boobu su nekkoon ci constitution ba léegi dara du am c'est réglé le problème de la de la transition de la disposition transitoire est réglée cette disposition s'applique au mandat en mooy limitation mandat yi mandat bi ci la bokk premier mandat bi. bu ci la bokk. donc mais conseil ko loolu moo indi après controverse bi ma ne comme wax na man wax naa sama xalaat. mais 2012 man la laa waxoon ne président de la république moom ci boppam su demee ba wax te du citoyen ordinaire parole am dafa am solo parce que sa peut même être considéré comme une de droit conseil constitutionnel tontu mais parole du président de la république source de droit sauf suñ ko deful ci loi wala règlement conseil constitutionnel moo ko wax man du ma conseil constitutionnel mais dama ne man mun naa wax sama xalaat ku nekk wax xalaat. mais après le juge man xalaat boobu laa bëgg nga préciser ma la démocratie kan mooy décider. c'est le peuple. non d'abord c'est une question de droit se pose c'est pas le peuple. non c'est le conseil constitutionnel. c'est le juge. ah c'est le peuple qui arbitre. juge bi mooy wax juge bi nag yenn saa yi nag mu wax loo xam ne da nga naan non franchement non man juge bi li mu wax nii man daal d'accord ma ci quoi. ñii ni ñii d'accord naa ci mais mooy décider. non mais non mais Ismaïla yaa ngi may yóbbu xam lu ma bëgg nga wax ma. Mm-hmm. yow en tant que professeur de droit est-ce que vous croyez toujours que l'interprétation de l'article 27 elle est nette et précise il n'y a pas possibilité de faire un troisième mandat oui ou non en tant que professeur moi je parle du professeur en attendant le conseil constitutionnel. man débat bi fi mu toll nii Sénégal fi ñu toll nii ci débat dootuma déglooti kenn ku dul conseil constitutionnel. non mais yow. sa sa sa avis personnel te te lu conseil constitutionnel wax man loolu laa jàpp. mais vous savez. avis nag avis nag mun nga ko wax. mais lan mais lan nga xalaat yow. non sama avis mooy li ma waxoon noonu moo doon sama avis. mais conseil constitutionnel mooy décider. non pas que conseil li nga wax man maay décidé da nga ne j'ai entendu des professeurs dire que telles que les dispositions ont été rédigées il y possibilité de de de d'une troisième candidature mais pour moi la constitution elle est claire nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs donc yow loolu nga gëm ba tey. non pas gëm loolu laa jàppoon. non ya non non non gëm ak jàpp bokkul attention loolu laa jàppoon comme interprétation loolu laa tiré woon man ci texte bi. mais conseil constitutionnel mooy juge bi li conseil constitutionnel décide lay jàpp. mais yegg seeguñu ci conseil constitutionnel vous pouvez quand même en tant que ministre de la justice nous donner euh, wax ñu la. j'ai pas de religion on ma ci benn religion. ma religion sera celle du conseil constitutionnel ndaxte man je ministre de la justice je ne crois que la parole du juge juge pour man soo xasee ba wax mun naa bañ d'accord na waaye dama ci ànd. donc yow mënatoo wax li nga waxoon. fi mu nekk nii juge rek laay déglu mi ngi mel ni procès yi dem yi nekk fii ci justice bi suñu ma nee lu ci sa xalaat ma ni sama xalaat amatul solo. pourquoi président li juge wax moo am solo. pourquoi président de la république mënul demander conseil mu defal ko un avis d' interprétation. xalaat la. comme ça mu mu wax ji leer. xalaat la bu am solo. on va faire l' économie crise. l' économie crise mais aussi peut-être même de controverse boo xamante ne ku nekk xam nga Sénégal actuellement la parole n' Sénégal parole d'autre amatul képp koo wax rek am na foo bokk léegi nag mooy eh, da ngay di sax ñoo xam ne dañ société civile la ñu bokk mais dafa am fu ñu bokk euh, ku ne man intellectuel laa xaw ma lan maa ngi jàngale États-Unis xaw ma fan parole bi natul fi nekk nii ku wax rek da ngay jël position Ismaïla Madior keneen a ci em nag ku wax da ngay jël y' a pas de parole. mais pourquoi mënoo suggérer président mu defal ko un avis d' interprétation de l' article 27. ma ne loolu xalaat bu rafet la surtout que comme ni ma ko waxee sànq depuis 2016 euh, constitution Sénégal article 92 bi dafa ne le conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République pour avis sur toute question. li nga wax noonu ma dëggal ko encore ne xalaat bu rafet la waaye nag état. lu xalaat bu rafet rek mun nañ ko mettre en œuvre xalaat bi dañ koy évaluer évaluer ko par rapport au contexte xool lépp balaa nga koy def mais xalaat bu rafet la. alors est-ce que l'universitaire jàpp na ne euh, tey problème mu troisième mandat bi problème la au Sénégal les chancelleries étrangères ñëpp ñu ngi tiit mu indiwaat débat bu mu bu indi woon jàppoo ne on doit se d'une énième crise autour de la troisième euh, candidature et qu'on doit s'en référer non, à l'esprit de, de la de de énième crise. Sénégal, il ne faut pas exagérer. Moussi fi am problème mu troisième mandat. C'est la deuxième fois. 2012 waaw du énième deuxième deuxième c'est pas N. deux ak N bokkul ci mathématique N mooy soo xamatul ban chiffre ngay wax mu dem bu bari nga ne N. euh, ces, ces, ces, ces, débats. Sous Abdou Diouf, on a non, eu ces débats. Non, non, les débats sur la limitation de de des, des mandats. On n'a jamais eu ce débat. Si. Sénégal, xam kañ lañ njëkk a limité mandat yi fii Sénégal xam nga ko. 70. Très bien. Maï en 70 je vois que nag <laughs> la ñu njëkk a le principe de la limitation à deux des mandats présidentiels cinq ans ñu supprimer ku kañ. 76 70 dañ ko indi Senghor def premier def def mandat 70 75 76 ñu supprimer ko bi indi le post de premier ministre non 70 la ñu indi le poste de premier ministre. en 1976 bi ñuy def que le président de la république su empêché premier ministre moo koy remplacer ñu supprimer waale limitation mandat donc 76 ñu supprimer ko. xam kañ lañ ko indiwaat ci constitution bi amuloon débat boobu ni ñu ko supprimer débat amu ci ñu ngi ko indiwaat 1991 juste bi ñuy def travaux code consensuel bi xam code consensuel 92 la mais avant dañu modifier constitution bi 91 ñu dugal limitation des mandats deux septennats waaw Abdou Diouf dafa ne d'accord naa waaye da ngeen di yokk mandat présidentiel bi mu jógee 5 ans dem 7 ans ñu def deux septennats dañ ko supprimer waat xam kañ la ñuy supprimer waat limitation mandat 98. très bien vous connaissez bien l'histoire constitutionnelle bay moom c'est bien. 98 <laughs> la ñu supprimer la limitation des mandats amatul. 2001 bi Abdoulaye Wade ñëwee dugalaat ko mais ne loolu nag référendum rek moom moo koy mun a changé waat président Macky Sall ñëw ne dëggal ko ba pare ne non référendum du ko mën a changé kenn dootu ko mën a dama koy verrouiller dama mu verrouiller ko. loolu mooy histoire de limitation des mandats donc musul posé wu au contraire. Senghor def na élection 63 68 73 78 81 mu dem Abdou Diouf def na 83 88 93 2000 mu dem Wade dafa ñëw def 2000 2007 2012 mu ñëw c'est la première fois qu'il y a eu une controverse sur la question du mandat première fois Sénégal mandat limitation mandat musul tere président de la République mu dem su fekkee dafa war dem musul am musul am c'est-à-dire que da ñëw sax def trois mandats Abdou Diouf bi muy def kii c'était sa quatrième candidature ñu remercier ko 2012 quatrième candidature ñu remercier ko Abdoulaye Wade bi mu ñëwee 2012 première fois mu am une grande controverse sur le troisième mandat conseil constitutionnel mun na nekk mandat peuple sénégalais bi ne ok mais remercier ko mu dem yoonam. mais pourquoi ñu dund ko 2012 mu coûté ñu lim ñu coûté en vies en la le taux de croissance un neuf un point neuf euh, njëkk yi cher inflation. ban taux ban de croissance moo nekk un point neuf. deux mille onze deux mille douze. ah dafa de croissance. bu wàcc fi léegi ñu ay huit waaw non ñu je sais Macky Sall ñëw a même été obligé d'aller euh, demander une aide budgétaire pour faire face à la campagne de commercialisation à la campagne agricole pour financer Sénélec ak yooyu après ñu lancer ay plan ñu jóg nit ñi am espoir 2016 ngeen ñëw indi réforme qui qui était censée être consolidante ñu ñëw bu 2023 on est là encore à dire est-ce que le président de la République pas et ñi di di affûter armes pour se préparer à se le président il va le le le le le 26 après euh, la la tudd la remise des conclusions euh, du dialogue on est tous assis sur des sur des braises on ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire s'il dit qu'il va y aller on va vers une crise pourquoi nga nga yow doo aider de par vos compétences de par votre expérience de par votre leadership dans le domaine euh, universitaire et, et, et judiciaire pourquoi doo aider à éviter cette cette énième crise là. non bu la waxee encore une fois énième. ah cette cette seconde crise boobu. je précise ah cette seconde crise là. crise ñaanuñu ko ci réew. te crise bu yàlla bu mu am Sénégal mais dafa am loo xamante ni président de la république loolu moom moo ko moomal boppam. Hmm. ndax war na ne candidat wala warul nekk candidat su fekkente ni yoon may na ko ko laa wax su fekkente ni yoon may na ko mais moom mooy décider lu tax yoon mën ko ko may. ba pare mu am ñu jóg ne ko yoon may na la ko waaye ñu duñ ko. d'accord c'est pas le président qui décide c'est la constitution qui doit fixer les règles du jeu yoon mooy lan constitution mooy yoon waaw ah. dama ne ci kaw yoon may ko ko loolu laa wax wala déggoo mu baax. Ah, ah, dama ne su fekkente ni yoon may na ko mooy li ma posé comme condition su ko ko yoon mayee su ko yoon mayul kenn débat amul débat amul ah mais dama ne su ko ko yoon mayee pourquoi mu am ay Sénégalais yu am droit jóg ne yoon may na la ko mais doo ko fi defee. non bu ko ko yoon mayee moom dafa war mën na koo def. bu ko neexee mais kon ko jeex na lay xaar nag ndax yoon may na may na. mais pourquoi ñun ñëpp ñu bari euh, majorité bi à part waa nguur gi et même waa nguur gi certains euh, jàpp nañu li ñeneen ñi jàpp ne euh, l'esprit de la réforme de 2016 c'était de verrouiller de rendre intangible la question de la limitation des mandats et nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs ça s'applique au président de la République et à son mandat et à ses deux mandats. xam nga loolu lañ jàppoon en 2000 2001 bi ñu defee constat bi bi ñu ñëwee 2012 loolu amul pourtant 2001 loolu lañ jàppoon mais conseil conseil dafa ne Ablaye Wade mu nga defaat beneen car beneen beneen candidature. parce que amul dara la ko teree loi bi c'est pas rétroactif sa premier mandat bokk ci. pour dafa amul disposition transitoire bu leer. et les gens avec le temps ils ont tous reconnu que dañ doon wax waxu politique rek que Abdoulaye Wade amoon na droit troisième mandat. peuple bi décidé na peuple bi décidé après xam nga lan moo am solo may mun a li am solo du lu société civile bi xalaat lu gouvernement bi xalaat lu kële xalaat loolu amul solo xam la moo am solo li yoon maye ak li mayewul li ci des yëpp ko def affaire doole nga def. ay jàmm gën lii ay xawma la loolu loolu affaire doxee yoon ñun ñëpp dafa am yoon moo ñu tënk constitution moo ñu tënk république ñu tënk li yoon wax nag la ñuy su fekkente ni yoon may na ko président la république ba pare moom ak ni mu xoolee Sénégal contexte bi Sénégal nekk environnement bi ñu nekk exigence yi nga xamante ni suñu état bi war na ci def fas mu xalaat ne kat moom li mu jàpp mooy dafa war a nekk candidat su ko yoon mayee mu nekk candidat donc maanaam na fii dama bëgg ñu revenir aux fondamentaux les fondamentaux c'est pas les menaces les fondamentaux c'est pas les histoires de morale ou éthique les fondamentaux c'est la constitution c'est la république mooy sart réew mi sart nga xam ne moo la tënk tënk ñëpp tënk Macky Sall lu sart bi prévoir ñu doxal ko su ñu defee li sart bi doxal lu prévoir ba pare mais nag am na koo xam ne nag moom kenn moomu ko nag moo nekk sax au-dessus non moo nekk sa au-dessus du conseil constitutionnel peuple sénégalais mooy décidé de dangay ngay toogaat wala da dem sa yoon peuple sénégalais moo koy décidé keneen mënu ko décidé man nag dama jàpp ne repli noonu lay doxee yoon la ñuy doxal su fekkente ni dañoo waxtaan te déggoowuñu su fekkente ni werante dafa am dama jàpp ne yoon mooy tranché li ci des nag peuple sénégalais bi man laa